est-ce que le conseil tamit amuñu dañoo dem est-ce que le conseil tamit dafa ñu coupé wuñu la poire en deux euh, euh, ils annulent le le, le décret ils euh, annulent euh, les dérogations apportées à l'article 31 tout le monde applaudit ils disent que l'élection ne peut pas se tenir le le 25 mais ils disent organiser l'élection dans les meilleurs délais est-ce que munuñu woon ñoom aussi à jël seen responsabilité complètement euh, par exemple joxe ay indication pour que dans les meilleurs délais bañ a nekk un boulevard incertain. ils auraient pu le faire mais mais il faut quand même faire attention dans la rigueur des principes du relu conseil constitutionnel. je dis bien dans la rigueur il est arrivé que conseil bi def ko def na ko 96 bu ñu amee problème élection euh, mon ami euh, devant Amadou me disait que def na ko aussi en en 2017 c'est possible mais dans la rigueur des principes. rôle conseil constitutionnel du édicter ay règles séparation des pouvoirs édicter des règles faire des règles c'est le pouvoir réglementaire ou c'est l'exécutif ou c'est le pouvoir législatif fële moom arbitre jeu politique la parce que règles yi ñuy édicté après nit mun na ko contesté waat bu ko contesté waatee si moom lay delluwaat au niveau du conseil constitutionnel moo tax a priori rôle du conseil constitutionnel du defar ay règles de droit arbitrer contentieux politique la le conseil bii mu euh, décision am na lu ma d'accordul ci décision am na loo xamante ne je n'ai pas compris la logique lan nga euh, par exemple lorsque le conseil dit que dafa annuler décret bi parce que décret bi dañ ko dafa jàppandu woon si loi bi te loi bi annulé nañ ko alors que décret bi moo jiitu loi bi donc décret bi de toute façon mu mën a trouver sa base légale sur la loi constitutionnelle qui a été voté euh, votée je considère juste que moi le décret là il était parce que simplement du compét pouvoir règle euh, discrétionnaire président ba mu mën a jël décret. mais mais mais conseil rappelé na ko nee na ko ni le président de la République ni l' assemblée nationale ne peuvent reporter non la non la non la prérogative de reporter une élection présidentielle quels que soient les objectifs poursuivis. poursuivis depuis 2016. Et le conseil donc rien que ça pouvait annuler le le mu ngi tudd le décret abrogé par Macky Sall. exactement mais moom argumentaire am wutul cëslaay si loolu cëslaay ji mu wut. mooy ne comme annulé naa loi bi rek donc décret bi itam amatul alors que loi décret bi moo jiitu woon moo jiitu woon loi bi donc de toute façon le décret ne pouvait pas avoir pour sous la loi bon mais ça c'est peut-être un peu technique je veux dire aujourd'hui le conseil quand même a été très tranchant sur ça c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses yu mu apporté aujourd'hui si si si décision xam nga man ban bi muy jógee assemblée Ablaye Wade moo yokkoon mandat député ma démissionné bu ñu saisir assemblée assemblée di as conseil daf ci ne man kat aw ma compétence su vérifier loi bu jóge si révision constitutionnelle par rapport à la constitution ne man attribution yi ñu ma jox contrôler conformité d'une loi constitutionnelle par rapport à la constitution bokku ci et ça le conseil bi di ko def di ko def di ko def ba 2016 mais gis ngeen xam nga lu ma bëgg ñu jàng gis nga booy jiite réew defal loo xamante ne ëllëg bu ñu la ko appliqué dina baax si yow mais ça malheureusement les hommes politiques ne le savent pas les hommes politiques ont une pratique dans l'urgence surtout Macky Sall bu bëggee dara tey nu mu ko mën a amee baax na quelles que soient les conséquences yi am bu dul woon la mu forcé woon 2016 ba mu ne day wàcce mandaam mu dem si conseil constitutionnel mënoo koo wàcce ba pare conseil bi changé avis bi ne décision la dañuy fàttaliku loolu. moo mhm. am débat ba la première contre un ministre de la justice contre le conseil constitutionnel ne li ngeen def ja euh, euh, euh, jaaduwul. gis nga décision boobu nga xam ne moom la Macky Sall doon tàcc yóbbu ñëpp si rajo naan non du avis décision la te conseil am woon droit jël décision ci boobu. du woon avis décision la du avis décision ñaan avis ñi décision ñaan avis ñi décision Macky xëy na waaw man damaa wax a yokk sama mandat parce que conseil bi nee dama ko wax a yokk léegi par force. gis nga même décision boobu conseil bi jëloon moom la ko te ko ko ne ko loolu mu nga ma la waxoon moom laa la tegal tey si kaw table. mais Moussa heureusement que le conseil a créé ce, cette jurisprudence là parce que le conseil est resté cohérent dans sa démarche. parce que bu à l'époque bu conseil ne woon bu ne woon conseil avis la joxe et sur la base de cet avis là président de la République. Euh, ñu euh, permettre ko mu wàññi mandam euh, en respectant sa for nu mu tudd sa promesse électorale comme ni ko opposition bi bëggee woon peut-être que bu cas bi posé woo conseil mën na pour man entre le président de la République, la classe politique de l'opposition et le Conseil, c'est le Conseil qui est resté cohérent euh, par rapport à l'application des textes. Non. 2016, Macky Sall a joué. Parce que en fait, pour réviser la Constitution au Sénégal, c'est l'article 103. Article 103, waxul ne da ngay demander ji avis Conseil constitutionnel. Macky Sall moo dem jaar ci beneen article constitution comme li de Gaulle de en France bu mu indil ko sax sa démission fa la dem jaaree pour wut foo xamante ne day indi conseil conseil mu rendre décision bu ko mettre à l'aise parce que en fait 2016 qu'est-ce qui s'est il oublie que le mandat là dafay dafay gaaw mu nekk traque des biens mal acquis traque des biens mal acquis il se lève un beau se rend compte son mandat là mi ngi mi ngi gaaw se dit cinq ans mënu ma def dara jeune suma mais bu muy taxaw France di ko wax taxaw taxaw Afrique di ko wax wax taxaw fii di ko wax di ko wax di ko bamtuwaat il avait la conviction que dafa bëgg a wàññi euh, mandaam bu mu nee ba temps bi tënku ko mu xam ne mënatul am bilan mu ne léegi damay delluwaat ci samay sept et c'est ça qui a amené tous les problèmes que nous avons vus il est allé emprunter de l'argent très cher pour am bilan au yokkale yeggale autoroute yeggale leen yeggale c'est ça qui l'a amené en réalité parce que pendant très longtemps nit ñi dañ ko defee mu nekk focus rek ci ay xeexu euh, diw bien daa c'est un c'est une demande mais le premier groupe financer le, le démarrage du plan Sénégal émergent c'était 2014 donc bien avant 2016 muy euh, ñuy def référendum bi. non non non euh, on dit pas modifier la la la la constitution. non on dit pas la même chose rappelez-vous quand on cherche le le le le BRT ak le le TER là. C'est après quand mu demee si Hollande il y a eu des problèmes en France ensuite ñëw dil soit je parle pas d'ailleurs de la réalisation en tant que telle mais l'idée de le faire c'est très bien mais après bu dee da nga am temps nga ne da nga bëgg a def benn bilan tout de suite là dama bëgg a leb xaalis sur deux ans parce que dama ko bëgg a réaliser léegi balaa maa dem fee effectivement les gens les banques je te prête de l'argent mais l'argent va coûter beaucoup plus cher c'est ça le problème c'est à ce moment là qu'on a eu moo tax ñu naan la le terre a coûté trop cher terre bi lañu def nañu la même chose au Maroc def nañu la même chose fële la même chose fële ça n'a pas coûté ça réaliser cela pour pouvoir présenter un bilan pour aller justement à l'élection à l'élection présidentielle justement le TER et le BRT dañoo am enjambé les les les les les deux mandats et Sénégal bi muy def sa mobilisation. oui oui de ressources là euh, quand même les les les taux d'endettement étaient étaient acceptables. la toute trente kii oui c'est que en réalité rappelle-toi qu'on avait même demandé lancé plusieurs fois l'idée que dañ koy inaugurer à telle date. après ça n'a pas réussi ñu reporte waat n'a pas réussi ñu reporte waat n'a pas réussi mais l'idée bi ñu c'était de le présenter balaa ñuy dem euh, élection on a même forcé des inaugurations c'est des choses non c'était pas une inauguration c'était une réception mais alors c'est quoi la c'est de travaux maintenant l'autre phase euh, c'était la mise en circulation les essais euh, ak ak ak ak kii nu mu tudd régler les problèmes des des des passerelles régler les problèmes de circulation des des des habitants yaa indi <laughs> débat bi juste pour la compta non je parle pas de ça je parle du coût financier moi de la réalisation je dis si on avait le temps c'est-à-dire si on l'avait mis sur temps bu gën a gudd am une bonne planification de l'activité nga xam ne demoo ba ñu njatt la nga soxla xaalis tout de suite tout de suite tout de suite pour réaliser tout de suite am bilan tout de suite je dis si c'était pas ça le terre allait coûter beaucoup moins cher que ça que ça a coûté en déficit bi nga xam ne da nga bëgg a forcer tout de suite da ngay def le bilan da ngay def lii da ngay. mais mais mais terre bi c'est pas un problème de temps. moo tax c'est pas le terre seulement. parce que tu tu ramènes le problème sur le terre non c'est pas un problème de temps moo tax terre bi coûté euh, huit cent huit cent huit cent milliards. Euh, quand même peut-être que c'est la modernité euh, d'une infrastructure dernier cri. et Macky Sall bi muy def bi muy mobiliser de l'argent pour le pour. financer le PSE temps bi ñettu ko woon et mobilisation financière bi ñu def à l'international beaucoup de financiers euh, dañ doon félicité wu que le Sénégal avait fait une très bonne moisson groupe consultatif bi ñu critiqué mooy le groupe consultatif de 2018 non la veille de la présidentielle on ne dit la même chose Euh, yow ya ngi may rappeler ay rendez-vous ak ak yooyu rappelez-vous bu ñu demee di wuti Eurobond c'était pas d'ailleurs seulement le TER d'ailleurs le TER et l'autoroute à à à péage c'était les deux en même temps nga xam dañoo bëggoon yàkkamti mu gaaw parce qu'il fallait mu préparer mu pare balaa ñoo dem à à à l'élection fekk temps bi daw na pendant très longtemps ça j'ai même fait un papier sur euh, sur ça je me rappelle bien je suis en train de poser je parle pas maintenant après de ce qu'il y a eu Sénégal pa na fee yow jëli ne ñu ne dem a euh, kii et cetera tout Pape Gueye parce que en réalité il faut quand même faire attention quand tu te présentes là sur le marché financier les intentions de prêt yi nit ñi ne damay lebal lii kii damay damay lebal lii ça n'a rien à avec ce qu'on donne après parce ce qu'on donne après il faut respecter les conditionnalités il y a, il je parle pas de ce, la cosmétique politique là euh, les effets d'annonce yóbbu nit ñëpp ñu dem France ensuite on fait une conférence presse ñu ne oui oui tey le ñu amoon bi nga xam ne Macky Sall il fallait mu dem à à l' de c'est ça effectivement c'était d'abord 2017 donc mu a dem 2019 mu ne ba benn instant mu xam ne deux il se dit écoutez parce que bu ñu ñëwee ba 2016 di dem euh, euh, fële y avait déjà quatre ans dañuy def révision constitutionnelle début donc normalement bu ñu dem élection c' à 2017 quand tu le bilan de Macky en il n' avait encore il a fallu mu en pour mun a préparer yeneen lu am indil ko. Euh, pour en revenir à la révision c' que je suis en la révision du report euh, xalaat nga ne en 2016 bu conseil constitutionnel posé wul woon jurisprudence bi mu posé est ce que xalaat nga Euh, euh, dina dina examiner affaire bi ba joxe une décision. oui oui ça va c'est ah, attends non non c'est-à-dire le problème ne se pose pas comme ça je dis d'abord ba ñu koy saisir moom 2016 conseil bi ba ñu koy saisir 2016 Macky Sall amul woon benn obligation saisir le conseil. ce que je dis là ceux qui sont chez eux nañu xool la constitution article 103 il y a aucune obligation de saisir le conseil constitutionnel pour faire une de la constitution la preuve là on vient de réviser la constitution. on a révisé la con est-ce que dem nañu demander avis conseil constitutionnel tu as vu l'avis du conseil constitutionnel. Hmm. on a saisi directement assemblée nationale ne ko damaa bëgg a réviser constitution ñu def ko entre dimanche et lundi mu jàll lundi du loolu la ñu dàq sax député yi ñu génn lan moo tax defuñu ko 2016 ba ñu bëggee réviser constitution bi parce que Macky Sall dafa bëggoon fu mu wéeru en 2016 pour conseil bi ne ko jox ko sant ko forcer ko pour ne ko mënoo réduire justement sa mandat. donc l'idée c'était pas ndax conseil bi amoon na pouvoir def ko wala amul pouvoir def ko l'idée c'était est-ce que Macky Sall mënoon naa respecter engagement bi mu jëloon devant l'électorat sénégalais engagement mu jëloon si kanamu sénégal yi jël ko France jël ko bitim réew wax ko plusieurs fois sa ay discours am ne man maay premier président bi wàññi mandat est-ce que amoon na les moyens juridiques pour def ko li mu def nii lii boo ko defoon 2016 wàññi mandat donc soxlawul woon muy jaar biir conseil constitutionnel mais bu mu demee ba soxla na maintenant nag bi euh, dama lii tënku naa si te sama wax xaw ma nu ma koy dindee la dem wuti conséquence ne leen kaa leen dimbale ma ñooñu ñëw jël décision. alors à part à part à part ça ban autre réserve nga am sur la décision du du du conseil. non j'en ai pas je te dis le le conseil en fait sax euh, dina changer même jàngale mon droit ci biir faculté yi par euh, la force de la décision bi mu jël pourquoi parce que en fait. pour pour la première fois non seulement le conseil dit que moom dafa compétent maintenant pour faire sa mais jàppal benn affaire tamit mooy à partir de maintenant comme depuis 2016 là li mu amee woon kenn mënatu la wàññi wala nga yokk mandat au Sénégal le conseil confirme sa décision c'est-à-dire du assemblée nationale du maire du conseil municipal du haut conseil du dara ku ñu falati à part de maintenant xamal c'est-à-dire aujourd'hui on est arrivé à ce qui se passe aux nga ne quatre ans ngay def pouvoir mënatoo ca yokk benn fan. la clause d'éternité elle est ancrée exactement. totalement e- et j'espère que Macky va être le premier à se l'appliquer cest que il faut que mu xam ne à partir du 2 avril selon la décision du Conseil constitutionnel moom mënatul a nekk président de la République. ça c'est ça que le Conseil dit le Conseil ne dit même pas que mënu leen à l'article le conseil considère que mën nañu déroger à l'article 31 mais le conseil dit le fait que nga bëgg na léegi damay déroger article 31 waaye président bii fi nekk dafay yóbbu moom mooy nekk président de la République ba 31 de quinze décembre élection 15 décembre yi donc janvier sax la doon jëm ba ñu falee président bu bees ba wax ko insta yaa fi nekk commencé nag nee na loolu nag moom mënatu la nekk Sénégal. mais nee na waxoon naa ko 2016. naa leen 2016 na léegi mënatu la nekk donc yow mii tamit aujourd'hui defal lu la neex waaye mënatuloo yokk la durée de mandat